waaw moo tax am na bàyyi ñaan gu mu doon wax buy firi alxuraan mu ne allahumma bika tadaayantu faqdi lii allahumma yow borom turi sel yeeg mel yu rafet yi bika ci yow kat tadaayantu laa lebele laa lebee ñu lebal ma faqdi yàlla na nga fay lii ngir man mu ni ñaan gu gàtt la waaye ku amee bor yu la jaaxal boo koy faral di répété eh, yàlla la dimbali nga fay bor ba allahumma bika tadaayantu faqdi lii